asalaamaaleykum rahmatullah uh, man maa ngi tudd imam Moustapha Cissé jiite ADDP station de Daara département Kër Massar ADDKM station de Daara département Kër Massar uh, waa tey ji nag boo gisee uh, ñu daje fi journée la boo xam ne nii pour formation ci wàllu état civil kii nekk sama càmmoñ mooy Makhtar Ngiraan di conseil pédagogique ci EF bu Kër Massar eh, kii di ajaa Koumba seen moom itam nekk eh, sëriñu daara eh, bokk ci association bi yor daara ju mag fii ci Malika moom itam dañoo woon ak département bi commune bu nañu jël fa cinq personnes pour former leen ci wàllu état civil ndax ni mu amee solo waaye yàlla def ñu am benn partenaire muy Amnesty ñoo ñu ci jàppale ba ñu mën a amal bis bi tey wax dëgg yàlla mu lu jëm këyitu juddu xale bi fi mu juddoo fi muy màggee fi muy jàngee ba kera muy doon mag ba kera muy génn àdduna ba ginnaaw loolu lépp nga xam ni këyit bi daal këyitu juddu mooy nit daanaka mooy lépp te ñu bari sàggane ko moo tax ñu ni woon nañ ci def benn journée sensibiliser ci sëriñ daara yi ak yaayu daara yi bu ko defee ñu xam importance bi nga xam ni euh, ki euh, këyitu juddu maanaam état civil am na ko ci doomu aadama bi loolu mo waral dajé bi tay wa loolu it bari na ci daara yi xalé yo xamanteni amuñu keuyit wala seen keuyit sori na ak ñom fañu nek nekk xam nga daara yi lu ci bari ñu fay dem ñen ñi dañu divers ñen ñi ay orphelin lañu amuñu parents amuñu ñu topato seen keuyit yi moo tax sëriñ daara yi di jakarlo di jankontek ay problème yu bari ci walu état civil waaye état civil mbir la moo xam ni même du daara rek boo demee ci école yi boo demee ci daara foo dem rek ci famille yi am na fay problème yoo xamante ni ci suba rek maa ngi dégg Casamance cinquante mille personnes yoo xam ni ay chef de village amuñu kayitu juddu kon Sénégal euh, état civil problème la fi moo tax nag ñu bëgg comme ñun dañu xamee ci yar xale ñu waxtaan ak sëriñ daara yi ba képp kuy jëlati xale nga laaj ay parents ay kayitam toppatoo ko surtout kuy jàng balaa àgg fu muy defee examen wala dara nga mën a am ay kayitam nga xam ni bu demee ba war a def certificat wala mu war a def defee wala bac du am problème yooyu. d'accord hmm. loolu bari na ay fas ay yoo xam ni yu ci bari dañ daan def juge euh, euh, daana ñëw ci maire yi ñu may ay kayit euh, nit ñi dem bokk ci. waaye li ci gën a am solo mooy imaam yi ci quartier yi délégué de quartier yi bàjjenu gox yi ñoom itam ci koñ yi ñu dëkk <clears throat> ñu taxaw xale yi ba xale bu judd rek ñu fexe mu am kayit nga xam ne bu loolu amee rek pour ñu dem daara wala ñu dem école fu ñu mën a dem du ñu am problème mu kayit loolu moom euh, chef de quartier yi am nañ ci àq imaam yi am nañ ci àq waaye bàjjeenu gox yi ak sages-femmes yi ñi nga xam mboolem autorités yi nekk ci biir famille foo ñoom ñëpp am nañu àq ci taxawu xalé yi bañu am kayit ndax nit bu amul kayit rek kenn mënu ko considérer fenn bokul ci fenn donc kayit moy tax ñu xamni sénégalais nga wala do sénégalais wala diiw wala jur wala diiw moy sé wajur lool bu kayit amul nak lool du mëna nek wa waa loolu war nañ ko yok ci côté mais war na mëna wañé ko ci côté ndax ko bi moy bu parents yi défé li leen war loolu dootul am mais su fekkee loolu amul ag guñ fofu nak war nañu def loolu pour. ni ko président defe woon année yi passé xale yi nga xam ni dañu doon jàng euh, ñàkk këyit mu bañ leen a tey def examen naam def na ko mais am na ñu mu indi gàllankoor ndax bañ ko defee itam ba jàll war a demaat te amuñu këyit it day indi problème kon daal teel a wut këyit mooy li gën depuis la naissance fexe ba xale bu juddu rek ñu wutal ko këyit loolu daal mooy euh, façon bi gën pour xale bi mën a teel a tegu ci yoon woo xamante ni du xalaat dara ci jàngam wala ci liggéeyam. waaw fi mu toll commune bu ne cinq personnes lañ fa jëlee woon rek boo ko seetee muy trente personnes loolu la ñu dajale woon pour waxtaan ak ñoom ci état civil ñoomit it bu ñu demee seeni commune parce que commune bu ne am na bureau président bureau ba ak ñoom àndal ñoo ñëw bu ñu delloo ñoom après ñu jéem a waxtaan ak seeni commune mbir mi gën a yaatu euh, ñuy sant bu baax nag ñi nga xam ni mooy am si Sénégal euh, te ñu dimbali ñu ci ndax ñaari ate a ngi ñu ngi liggéey ak ñoom. defaloon nañ ñu fi formation defal ñu fi nu ñu tuddati euh, consultation gratuite ci xale yi seet leen seen wér-gu-yaram defal faj leen ñu am nañ sax ñu mujjoon jël sa en charge yóbbu leen faj leen loolu itam ñu ngi koy seq ak daara yi di sant ñi nga xam ne ñooy yore protection de des enfants Mouhamed Sarr bi nga xam ne moo ko jiitee ci Kër Massar yore action sociale moom itam ñu ngi ànd ak moom di liggéey ci département bi ci wàllu xale yi ci wàllu daara yi vraiment ñu ngi ñuy jàppale bu baax ñoom ñëpp moom Maguette Coly Euh, le sous-préfet euh, le sous-préfet Diawara aussi mi ngi ànd ak ñun ci liguey bi diñu ci jappalé ak monsieur Babacar Ndiaye euh, préfet du département de Kermassar, ñun ñu ngi ñuy jappalé ci bonjour je m'appelle Mamoudou Sar je suis le directeur du CPRS de Kermassar, et aussi le point focal institutionnel du CDP de Kermassar, le comité départemental de la protection des enfants. D'accord, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour aider les jeunes pour appuyer les jeunes pour pension du ou de Merci. Donc aujourd'hui, euh, sur invitation de la Fédération départementale des maîtres coraniques de Kermassar, le comité départemental euh, est là aujourd'hui pour accompagner euh, ces derniers. Donc, dans le cadre de la sensibilisation par rapport aux procédures et de déclaration à l'état civil. Comme vous le savez, Kermassar est confronté à ces difficultés-là relative à l'obtention d'actes de naissance, surtout chez les talibés. Donc le CDP est là pour accompagner les maîtres coraniques, donc euh, dans le cadre de la sensibilisation, mais aussi euh, les capacités par rapport euh, aux procédures de déclaration à, la naissance. Mais est-ce que vous avez aidé certains enfants à avoir les actes de naissance Donc, pour l'instant, nous avons déjà fait une, des ateliers euh, dans le cadre de l'interopérationnalisation euh, euh, entre état civil et la santé, état civil et aussi éducation, qui nous a permis de faire le diagnostic, de comprendre l'état, la situation des enfants sans acte, sans acte de naissance. waaw xam recensement ci def parce que ñi ci Euh, duñu bi ñu fi amee benn programme boo xam ne euh, dafa état bi daf ko kii woon mu nekkoon PAPS euh, jotoon nañoo fexe ba doomu wut xale yi seen ki mais gisoon nañu foofu ne que boo seetee li ëpp ci xale yi amuñu kayitu juddu donc bon xam nga nag fii bu dee Kër Massar département bi nag moom bi ñu fi recensé woon ci daara dafa bëri mano ne ba ay quatre cent yooyu donc kon euh, li ci ëpp nag gis nañ ne bi ñu xoolee parce que ñi am ñi am kayit ñi am kayit yu dafa néew lool par par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ko waroon am donc loolu loolu nag dafa dafa ñuy war a mën a motiver pour ñu mën a euh, sensibiliser li nga xam ne mooy sëriñ daara yi nga xam ne kenn ku ci nekk boo indee sa ndongo li mu lay jëkk laaj mooy ndax am na kayit yu su ko amut mu mu wan ko teg ko ci yoon wi nga xam ne moom dañ xale bi dina am kayit yu tant xale bi dem ba àgg foo xam ne. dafa dañ koy laaj kii tuju fekk du ko am donc loolu nag aussi foog ñu xam ne si sëriñ ndax sëriñ daara sama classe sëriñ daara yi am ñoo xam ne xëy na xamuñu amee ñu leen di leeral yoo xam ne euh, ak importance wu euh, kayitu jur bi ak lim ko mën a gàllankoor ëllëg ci ci ci ci ci avenir am loolu tamit dafay jëriñ wax leneen beneen problème bi ci am mooy bon xam nga daara tamit léeg-léeg nga gis koo xam ne dafay diire ci daara bi maanaam dafay am at yoo xam ne xay na bala moo jàngalee leen euh, at yooyu mu am ci kii boobu ci daara bi pare bu ngay demaat dem defi école français wala franco arabe jugement lay mujj defaat donc loolu te fekk mën naa am xëy na sax du ko am am nañu ñoo xam ne aussi tamit dañu leen di dañ jóge fa sori dikk toxusi fii fekk ñoom seen i sax ñoom sax amuñu ay kati gi te aussi ñoom duñu xam yoon wi ñuy jaar donc kon nag euh, euh, vraiment programme bi dafa baax lool parce que ren gis nañ ne si même si ñi nga xam ne dañuy euh, programme kii ñu tuddee plateforme bi nga xam ne pour ñuy def entraînement sixième certificat Euh, xam nga ren dañu dugal ci euh, affaire bi programme bi mais da gis ñoo xam ne vraiment ba léegi sax amuñu amuñu amuñu kayitu juddu donc loolu tamit dañ mais comme may nañ leen ñu inscrit dugal seen i kii ba mu des loolu euh, parce que dañu leen di bañ a xañ aussi ñu bañ a def examen mais alakulaal li ma bëgg wax foofu rek mooy mooy programme bi daal fii ci Kër Massar ñi fi xale yi fi amul kayitu juddu bari na trop donc waaw xam nga rek comme ni ko waxee rek ci audience forel yi yeeg yooyu ak programme yi nga xam ne ko doon jël pour mën a fexe ba dimbale surtout nag ñoom nag li ci ëpp fi ñu vocaliser woon mooy ci élève entrée en sixième ñiy def examen ñooñu la ñu mën a kii parce que ñoo ñu ci des amaguñ seen kii ba amaguñ priorité pour mën leen a euh, jox kayitu jur parce que seen loolu seen parents ñoo ko ñoom léeg-léeg ñu bëgg def mooy sauver élèves yi nga xam ne war nañ fi examen ñu jéem a xool yan programme ak orientation li am ci ci yi nga xam ne ñoo fi ñëw ñu jéem a xool ñu leen dugale pour ñu mën leen a defal euh, kii bi euh, extrait de naissance wala kayitu juddu donc foofu daal lañu ci tolloo mais quand même daal xam naa ne war nañ gën a euh, sensibiliser euh, parent yi waaye tamit euh, gën a tamit soñ sëriñ daara yi aussi ñu ñoom tamit ñu taxaw ci parce que am nañ seen rôle bu mag boo xam ne war nañ ko doxal nga kayit am kayitu juddu